أخذ الأقوات وأفاد على الأعمال الصالحات وصلى وسلم على سيدنا محمد من المعجزات الباهرات الباهرات البينات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وصحبه في الغدوات والروحات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والميقات وبعد mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu teey ñu tëbbe ci xol di leen sant ci taxawaay bi di leen ndokkeel ci bis bi ak yéene ji ak di leen yëkkati seen tànk yi ngeen dox daje fii ngir yàlla ak jëriñu ñoo ngi ñaan suñu borom rabbul izzati jalla wa ala mu mottali yéene yépp jéggalu bàkkaar yi wéeral yaram yi lépp lu ñu mébét te du mooy lu nuy wàññi suñu borom sottal ko ni mu gën a rafetee añu fa nu gudd defal nu jàmme àddina ak bu àllaaxira dañu ne waxtaan ak mbokk yi ci biir mbokk yi ci biir diine lislaam day dundal xol dundal xol yi la te fóotum bakkan yi la te fàttali la lu ñu fàtte woon ak sulli lu ñu xamul woon ndax àdduna di mbégam ci njàqar rek lay mujj ak jubloom ci dëgg rekk lay mujj dund lu mu gudd gudd lu mu neex neex ci dee rekk lay jëm ci lay mujj bari na ku jub bis ko yàkkamti te doo ko mottali doo ko àggale ak ku yàkkamti di xaar ëllëg te du ko fekke doomu aadama nag bu seetee xam fu mu toll ak muy dund gi gaal bu ñëw romb nag beneen daldi ak dana wattandi ko nëbët yu gudd dana wattandi ko xalaat yi àdduna yu bari dana wàññi itam lépp loo xam ne dana indi loru ci moom damaa dama nag ñeent maam yi mu am yàlla boole ko ñoom ci àdduna di ko seet ko nattu jox ko kàttan jox ko xel digal ko tere ko muy seet mu muy mujjee moom ndax jox na ko gànnaay jox ko kàttan jox ko xel wan ko yoon mu war a jaar ba mucc ci ñoom waxtu mu sàgganee wala mu yox yoxi wala mu topp bànneex yi nga xam ne mooy gën jaar màggi noon yi doom aadama am bu ël bu ëllëgee rek muy suñu bëggul woon tax na li bànneex mooy caabi bépp ñaaw téef mooy noonu bépp rafet rafet te bépp bànneex noonu la dund gi lu gàtt la soxla yu bari la شاعر لك ما قضى أحد منه منها زبالته ولا انتهى أرب إلا إلى أرب adduna kenn du ci mottali sa soxla yépp li nga bëgg lépp doo ko ci def mukk ba mu jeex ndax soxla su daanu rek beneen taxaw maa dama war rek su gànnaa yow muñ ak gàttal nëgët ak xalaat ëllëg wa fi fuaadika askan zikra axiratin wa dinnaha kulla waqtin ay iskaan sa xalal ci sa xol fàttali ko àllaaxira fàttali ko saraay bàmmeel fàttali ko sukuraat boo ko saxalee ci saxol bis bu ne nga gën a ragal yàlla ndax xol day xomaat sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu xomaatee li koy namm mooy jàng alquran ak fàttali ko dee ak teere béréb yi ñuy fàttalee yàlla lu mel ne li ñu fi dajale tey nee na képp koo xam ne sa démb ak sa tey ñooyam nekkuloo ci dara képp koo xam ne sa démb gën sa tey dugg na ci perte bu gën a màgg nit ci dafa war bis bu ñëw mu gën ca ba woon jëm ndax nit ki war nay régler boppam toujours ni commerçant bi régler boppam te seet démb fa mu toll woon ak lam defoon mu seet tey lu mu def ak fi mu toll ndax tey la gën ci démb ndax def na tey ci góorgóorlu lu mu nekkul woon def wala lu mu deful woon démb loolu koy xamal ne mu ngi ci dara te mu ngi yokk te lu fanam gën a gudd muy gën a jege yàlla lu fanam gën a gudd muy gën a texe lu fanam gën a gudd muy noppalu ëllëg ak mu jëm di gën a rafet kon suñu borom yi dëggru lam ramina samaai ila lard suma yaxruju ilay fi yamin kaana miqdaaruhu alfa sanatin am na xamsina alfa sanatin am alfa sanatin mu ne ma yuutul xikmata man yashaa wa man yuutul xikmata faqad utiya xayran kasiran suñu borom benn mooy seetantal mbir yi dogal ko jaarale ko fan ko war a jaarale dogal ko ci jàmm te mënuñu ci dara dogal bi neex mu naqari wan na la la nga war a def ak na nga ko war a gise te boo ko defee doo perte boo ko deful perte xam-xam nag ba xam-xam jeex te xam-xamoo jiitu jëf moo war a jiitu jëf topp ci li ngay war a jëf na nga ko xam boo ko xamul jëf yi ñoo du rafet tuyaaba ji du toll na mu war a toll alquran nee nag képp koo xam ne xamal nañ la xikam jox nañ la yiw yi gën a bari yi mu bari lool ñu ne bil ardi qaamatil ardi wa samawaatu asamaan ak suuf suñu borom mu ngi ko taxawal ci yemoo daf koo organisé ba mu jekk adduna bépp lu ci bët mën a dal wala loxo mën koo laal li ko tàmbalee ci lu gën a awaliya mu di suuf ba àgg ci ndox ba àgg ci jaww ba àgg ci safara fàq mel ni maanaam minéraux yi fàq la ko féete kaw te suuf ca mu di lii sax li minéraux yi nga xam ne moo gën a suufe ci lii suñu borom bind ci li doomu aadama di gis la ca gën a kawe jege na lii sax lii sax itam la ca gën a kawe buñ ko seetee dem na ba àgg ci daanaka luy dund ndax lii sax ci suuf àgg na ci la ci gën a kawe àgg na ci làmb daj di yëg li nga làmb di xëcc li nga soxla di ko yóotu bu ñu weesoo yi sax ndundat yi yi dul nit nekk ci àdduna ndundat yooyu ñoo féete kaw ñoom it ñax mi sax ñoom itam nit ñee leen féete kaw ndundat yooyu itam am na ci yu jege doomu aadama ndax lu ci nekk rek dafa am ay catégorie yoo xam ne day gën a mat ba àgg ci la ca sëf nopp jaboot yi am na ci yoo nga xam ni lu ñuy wax baabul jege na nit ba am ci borom xam-xam yi woon ku dem ba ne nit mu ngi jóge ci baabul te ay espèce la yoo xam ne dafa sësaloo tàmbalee ci la gën a suufee di dem ba agsi ci doomu aadama sut nag doomu aadama àgg ci askar yi jóge ci askar yi ba àgg ci malaayika yi ba àgg ci malaayikatul muqarraboon yi nga xam ne ñoo gën a jege suñu borom àgg ci yonante yi suñu borom ñu bind sës ci gën a féeteetul kaw lu dul suñu borom tabaraka wa taala li mu organisé nag àdduna bi ci la organisé dundu doomu aadama doomu aadama bu mu ko sàkkalee xel sàkkal ko nopp sàkkal ko bët sàkkal ko loxoog tànk lépp lu des lu manqué ci moom la defal nga ko mu mën lépp ba àgg ci texe ga gën a mat mu ngi aju nag ci itteem volontéem rek su borom organisé ne adduna bi organisation bu yéeme ci ñi xam dara ñu xam dara buñ tàmbalee wax daañu am ak tekk ak teeylu ak dégg li ñuy wax posé ci seen bopp ay question bu ñu xamee question yooyu mu jëriñ leen buñ ko xamul ñu jëm koo xam ci laaj ak gëstu organisation boobu ma wax misaal ni yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam dafa mas a tawat dem wax ko suñ borom suñ borom saafara ko ci lu dul garab mu dellu tawataat dikk ci yàlla mu digal ko benn ñax plante boo xam ne moom la war a fajoo mu dem faju ca wér dellu feebaraat jubal ñax ga dem fajoo ko mu yokk tawat ja mu feebaraat dellu tawat ja yokk mu dellu ci suñ borom jàngat jàmbat ko mu dek mu digal ko docteur ba mu dem docteur bi faj ko mu dellu seen suñu borom waaw lii mooy lan lii de man jaxase na sama bopp nga bidde si àdduna bi xaw ma ci dara mu ne ko tawat nga ñëw ma saafara la te joxuma la garab ngir nga xam sama kàttan nga tawataat ñëw ma yebal la ci ñax moo war a buddi fajoo ko ngir nga xam sama xikkam nga tawataat dellu ca ñax ga ñax ga yokk sa feebar ngir ma xam wan la sama sañ-sañ ak sama kàttan ak sama man-man lu ma neex def dara ajuwul ci dara nga ci fajuwaat jóge ca ñëw ci man ma fekk saafara woon naa la ci lu dul garab ngir nga xam sama kàttan ma saafara la ci ñax gi ngir nga xam sama xikam nga faju tawat ñëwaat ma yebal la ci docteur bi ngir nga xam ni ma toftalee adduna bi ni ma ko organisé loolu laa bindee léegi teg naa leen ci yoon woo xam ne ci ngeen war a jaar ba agsi ci man ci ngeen war wan leen it yoon bi nga xam ne moom ngeen war a topp ba mu alag leen bu ëllëgee ngeen réccu te du ngeen ko jàngat kenn ku dul seen bopp li nga xam ne nag mooy mujj lépp mooy yàqin dama adama bi àgg ci ngëm foo xam ne bu demoon ba nga xam ne ñu ngi koy bëmax kàmb safara rek nekk ci kanamam bu ñu ko bëmaxee mu daanu ci te ñu koy bëmax dañuy continuer di bëmax rek te duñ taxaw mu wóor ko ne rek yàllaa na ci kanamam te safara bi yàllaa ko sàkk yàllaa koy lakkaloo mu lakk bu ko yàlla lakkaloowul du lakk ibrahima alayhi salaatu wasalaam kàmbu ngëm nag yemul fenn ndax ngëm àgg na ci bu la safara gisee tiit safara wala àllaaxira laa bu la gisee tiit mu ne kooka ragalatul safara yàlla dong la ragal gisatul ne safara dana lakke gisatul ne ñam dana suural gisul ne naan ndox dana mandil yàlla la gis muy suural di mandil di lakk di texeel di texee di di amal di ñàkkal nga xam ne kon yooyu yëpp ay kiiraay lay suñu borom doxale suñu digg ak moom ngir nattu ñi gëm nu war koo xotti nag ba àgg ci moom ngir suñu gëm mat nu àgg ci li ñuy wax yàqin kiiraay yooyu yëpp nag gannaaw moo dox suñu digg ak suñu borom bu nu ci yemee du nu gis yàlla du nu àgg ci moom du nu texe du nu suñu àjjana it dana jafe bala muy àgg ngëm kon mooy ful maanaam mooy multiplier valeuru jaam ci ngëm la doomu aadama yi di rawante ngëm nag dana ko wax na muy yokkoo ak na muy wàññikoo ak na nit di def ba ngëmam di yokk ak na muy def ba muy wàññiku ngëm ci lu nëbbu ak ci lu feeñ day ànd ak doomu aadama bi te du tàqli ko moom mukk duna ko àggal ma taxaw fii di la xaar fu mu dem def ko fay jiitu ànd ak moom topp ci moom ci ngëm la nit di amee kon wala ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na amul lenn loo xam ne benn ba dana gën junni lu lu dul ci doomu aadama lu ko waral ngëm ndax bi muy wax naan bu ñu faboon ngëmuk Abu Bakr ne Siddiq teg ci plateau balance fab ngëmuk xeetu yonent bi yépp sallallahu alayhi wa sallam teg ci benn balance ngëmuk Abu Bakr wat leen Abu Bakr dafa àgg ci irtifaaul wasail bi nga xamee ne dañuy waajal xare Tabuk bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xam ngeen ne xare ñii xare dañuy lekk dañuy naan dañuy aajowoo lu ñu war dañuy aajowoo li ñuy jëfandikoo yépp mu ne jullit yi ku nekk loo am nga def ko ci yoonu yàlla wi mu yóbbaloo ko dem xare gi jullit ñi indi lu ñu am lépp ku ne di indi la nga mën sidna Usmaan indi lu bari ba sidna Abubakar indee mu ne ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla akub yonentam sidna Umar indi mu ne ko loo fa bàyyi mu ne ko lu toll ne lii ma indi mu ne ko noonu la seen ndëm yi demee ni ngi seen jëf yi demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir xamal nu ngëmut ñi sësoon ci moom mooy Abubakar Umar bi mu ne ci biir banu israel yi dafa amoon waa joo xam ne dafa jàpp nag wi di ko sëf di ko war di ko lottal ba nag wi wëlbatiku jàll moom ne ko man de kenn binduma ngir lii dañ ma bind ngir rat ak rendi sama ñam sama yàpp ak sama soow di njariñal doomu aadama yi saaba yi ne yaa subhanallahi baqaratun takallamat laa ila nag muy wax mu ne ah man de gëm naa loolu man ak maag aboubacar ak umar noonu ngëm di fayee safara wi tàkk ba ci safaraw alaxira lay fayee ngëm merom suñu borom tabaraka wa taala aboubacar nag ngëmam dafa àgg ci na nga ko seet ci sulxul xudaybiya bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëggoon a dem màkk bi mu yàggee madina ñu namm màkk ñu namm màkk lool te jóge woon namm kaaba gi nam mu béréb ya nam mu lépp yonent bi salaa sallam fas yéene umra dugg màkka umra ànd ak saxaaba yi duñ dikkee te ñeefar yi dogale leen ñu dem di ngeen dugg màkka ñu dem ba àgg ci ne nañ signé pacte pacte bi ñu ko libelee lépp lépp lépp loo xam ne lii day woyofal nit ki ñu féetale ko jullit ñi lépp li avantage ñu jox ko waa màkka jullit ñëpp nag mer ba am naqar lool ba umra sax seen xel dematu ci fàtte nañ sax yonente bi sallallahu alayhi wasallam aboubacar umar bi nga xam ne ñoo ci gënoon di kàngam Alioune dafa nekkoon xale umar ci mu gën a naw ci jullit ñi muy aboubacar mu dikk ne waa aboubacar ndax du noonu noo ci ñoo ne ci dëgg mu ne ko xakaay ndax du waa màkk yi ñoo ne ci caaxaan mu ne ko xakaay mu ne ko lu tax nag ñi duñu féetale suuf di féetale seen bopp kaw mu ne ko seede naa ne Mouhamed yàllaa ko yónni te du ko réeral te lu mu ko sant lay def te fu mu jaar fa la mu ne ko man itam seede naa loolu dal dem ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko ni mu waxee Aboubacar mu ne ko Omar ndax yàlla akub yonentam bu ñu dogoo ci dara Omar am na sañ-sañu di ca opposé sidna Omar piit bay lox ba ñaq nee na boo bis boobu ba léegi bu ma ko fàttali ko di yokk samay jaamu yàlla di yokk samay sarax di yokk samay balu ndax suñu borom baal ma loolu le Aboubacar nag ni mu gëmee loolu mooy bu fekkoonte ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam diisoo na ak ay jëmm la mu wax di lu dëng ci xeli nit ñëpp ñu jàpp ne lii jubul it Aboubacar moom dana ko gëmee ni nga xam ne noonu la mooy dëgg ndax lu tax suñu borom daf koy daf koo wan sirru jublu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lu mu jublu même bu aaya ñëwee génne ko tey fekk na jamono yi ñu ciy jubloo ba ba aaya ji ñëw loolaa nekkoon dëgg te loolaa doon njëriñal jullit ñi te loolaa doon yoon yu jub Aboubacar suñu borom daf koo wan loolu moo tax lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def rek mu d'accord te bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi gàddaay gi bi mu ne dem na xut jóge ma madina dem ko asamaan ba àgg ba jël si dërsul muntaha bi nga xamee ne xaaris xaaris ibnu ibnu umayya ñëw na ne ko waaw yow da ngay dem nga asamaan fekk abubakar bi ko ne waaw yow sa waa ji dama nga fee ci jàkka ji di wax nee na dem na asamaan dem na itam xut ci guddi gi mu ne da ngeen koy waxal lu mu waxul ñu ne ko ma nga ne ci jàkka ji demal ba nga koy wax du dikk ñu ne ko waaw gëm nga li mu wax mu ne waaw waaw mu ne jibril day jóge ca si dërsul muntaha ak si ci xasinu bët indil ko ay aaya ma gëm ko du ma gëm loolu waa ji ñëw ne Mohamed dem nga asamaan mu ne ko waaw mu ne ko yëkkatil sa tànk mu yëkkati tànk mu ne ko yëkkatil bi ci def te bul teg beneen bi kat mu ne ko déet loolu moom mënuma ko mu ne ko ah fële nga dem nga asamaan mu ne ko déet bul juum musul laa musul laa wax ne yéeg naa wala rañaan naa dama naan la rañaane nañ ma yéegee nañ ma laa la wax waaye musuma la ne man maa yéeg dem asamaan de waa ji jaaxle léegi bala may ak ci mbiru xale yi tamhid bi mooy li may def kon ngëm gannaaw moom rek am solo li nga gëm rek lay jëriñ li nga gëmul moom lu mu rëy rëy mënu laa jëriñ ab yonent lu mu foor foor boo ko gëmul mënu laa ram wàllu yu xutbul xaw lu mu foor foor boo ko gëmul mënu laa jëriñ te taalibe yi li ñu bari bari jullit yi li ñu bari bari bari ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam que ci ëpp ngëm rek moo cay gën a xeji ci moom taalibe yi itam li ñu bari bari bari bari ak lu ñu farlu farlu farlu que ca gën a gëm sëñ bi rek moo koy gën a jege mooy gën a jëriñ ci moom moom lay njëkk a fàttali ko itam ndagam dana fàtte ngëm nag li koy dolli danaa ci dellu si di waxtaane xale yi tuuti mooy yi ma daan faral a wax rek li ci jiitu mooy ak zikru wal fikru yi ci tegu sag ci tegu daan ci wax tuuti waaye xale yi yéen ñi nga xam ne yéen yaakaari ëllëg jamono jiitu tollu day li nit ñi naan foofa la raay ba téene yàqu-yàqu yi àgg na ci fi raay bi téene mooy fi nga xam ne saxaar gi du ko weesu ndax lëndëm gu tat rek arab yi naan xat balaxa seylu zuba ndox mi doon yol di dem day àgg na ci kan moo xam ne mënatu ko weesu lépp day daanu ci day sotti ko ci kan bi ñu ne wa tasaal xar ko ala raatiqi ñawkat bi doon ñaw mbubb mi mbubb mi dafa toj ràpp te foo ñaw mu beey foo ñaw war faa dellu siwaat yàqu-yàqu bu matalee noonu lay demee ah illa qalilan la rek mu des nag lu néew ci jamono bu mel noonu ci choc la Ahmad Shawqi doon wax تعب نان تعبت بأهله لوما وقبلي دعاة البر قد سئموا الخطابة ولو أني خطبت على جماد فجرت به الينابيع العذابة موني waxna ba son waxna guddi waxna bëccëg waaye sama yeddee yi sama waaye bi sama fàttali bi sama yeete bi mel na nit ñi dañoo gumba tëx lu daanaka jëriñul kenn dara lu ñu néew te man it njëkkuma ci te duma ci mujj ba ma daataan ñëw ci àdduna fekkoon naa ñi daan woote jëme ci lu baax bëgg a xett li nit ñi wax ba sonn waaye nag ñun ñu ay catégorie lañu am ñoo xam ne ñi ko sallallahu alayhi wasallam wax rek nee na lislaam dafa mel ne xeeti suuf yi suuf soo xam ne tund la ndox mu ca daal barasti ko dem ci xuroo suuf soo xam ne suuf su nooy la soo xam ne dana saxal gàncax waaye du téye ndox mi ak suuf soo xam ne day saxal gàncax téye ndox mi nit ñi root naan sang toog suuf si nga xam ne ndox mi day barastiku mu ne mooy ki nga xam ne bu ñuy wax xelam nga feneen wala li muy wax du dugg xolam daf koy dégg dafa daf koy dégg rek waaye du ko jëriñoo ki nga xam ne dafa mel ne day saxal ñax suuf si saxal ñax te du téye ndox keneen du ca duy si di ca jëriñu waaye moom ci boppam dana jëriñu ndax ñax mi sax na lépp mooy ki nga xam ne dana dégg wax jëriñu ca waaye du ko jot li keneen ki nga xam ne mooy suuf si téye ndox ba noppi saxal ñax mooy ki matal njëriñ mooy ki nga xam ne dana jëriñu jëriñe kon Ahmad Shawqi buy wax loolu seetlu woon na loolu kon képp koo xam ne yaa ngi jublu àdduna li passé guñ ci sa àdduna bariwul génn nga ci fi nga xamee ne kenn du la bindal bàkkaar te say wax neen la benn jaarale woon nañ la yoon wala jaarale wuñ la yoon chance la nga juddoo ci këru diine ndax milieu mooy formé nit boo juddoo sa ndey di nitu diine sa baay di nitu diine sa mag di nitu diine sa tàntaak sa nijaay ñëpp di nitu diine da ngay dal di yaroo ci diine ji ndax danaa ko wax ci kanam jëf ju nekk dafa am roox te rooga moo am solo rooga mooy mooy def lay am solo bu dee jëf ju bon roo bu bon ga jëf ja am mooy li am solo mooy di jëf nit nag gannaaw fi mu juddoo ndeyam ak baayam day am ci moom influence ñi ko yar am ko ci ñi koy jàngal daa ko ci am buñ ko amatul léegi it daa ñu ko am quartier bi mu dëkk am ko ci dëkk bi am ko ci réew mi am ko ci buñ demee ba kenn yaratul kenn xamleetul kenn yeeteetul milieu bépp yàq kër gi xale bi du roy lu dul lu bon xale bi bis bu nekk li koy yar mooy mbedd mi mbedd mi ñim ciy dajeel mooy ñi yàqu ne moom ñu gën koo yàq film yi muy seetaan ak télévision bi ñu gën a dugal ci boppam lu koy yàq di wëlbati xelam jëme ko feneen ci lu koy lor ëllëg te du ko xam mukk fi muy jànge même chose magam di muy teg bët di ko roy noonu yaayam noonu baayam amutul jot bu bëggee xëy liggéey wàcc midi bëgg a déglu rajo bëgg a noppalu bëgg a añ bëgg a jàng journal bëgg a gontaat wala mu dem muy kuy dem ci grand place yi di bëloote di fo yeneen i fo xale bi ah innocent la boo xam ne yàq nañ ko yàq goo xam ne yërmande yàlla rek ko mën a dogale mooy buñ ko dugalee ci daara ji te sëriñ bi xam jàng xam jàngale xam nañuy jàngale ak nañuy yere mu sowe bu fekkee ne loolu amul xam ngeen ne nit moom ni ngeen ko xamee du tànn mënu libre libre liberté bu mat ndax du tànn ndeyam ak baayam te fokk ñu jeexital ci moom du tànn réew mi muy juddoo te faww réew mi jeexital ci moom ki juddoo Italie ki juddoo États-Unis ki juddoo Makka ki juddoo Sénégal niroowuñu dara kenn ku ci nekk la la sos moo bàyyi ci yow la nekk meloo nga meloo moo la ko jox li gën a bari doo tànn sa sexe boo dee doon góor wala jigéen doo ko tànn doo tànn ñi lay jur doo tànn ban waxtu ban jamono ci àdduna ban siècle ban at ngay ñëw ci àdduna kon liberté bi matul waaye nag fa nga xam ne sa liberté ak bu fa kenn toppu la fa xaq kenn toppu la fa bàkkaar kenn du la fa bindal dara daana ko waxtaane incha allah doomu aadama nag mooy melal milieu bi moo koy couleur moo koy melal ni mu mel moo koy bonal moo koy baaxal ba ku ci juddoo wala nga yaroo ci wala nga sax ci amu melo ndey ak baay moom am nañu responsabilité bu day ne ñetti ñay moom bu keroogee dañuy layoog seen doom yi lu ñu sàggan lu ñu leen dëngal bu ñëwee même sa soxna ak sa doom nga lekk loo ko lu lu lewul nga fàggu sàkku alal ba amee ko amin woo xam ne lu lewul la ba ci bu ko jigéen ji lekkee weenam bi doomam ji muy nampal soo mu jógee ci lu xaram da nga ko lay wax moom bu yemal xiyaamee te soow mi dana def taasir dana influence dana jeexital ci xolu xale bi ma ne nag kon wajur yi am nañu responsabilité bu rëy nañu jël seen responsabilité kenn terewu leen ko lépp lu ñuy tànn la ñu tey opté mooy jëlal boppam jaar yoon yi wala yoon yi wala yi waaye kenn forcé wul kenn ci leen kenn ku nekk loo def yaay responsable kon góorgóorlu bu ngeen xasee jógee ci marxala boobu maanaam étape boobu ba nga xam nag yéenay seen responsable bopp am ngeen fukkeet ak juróom-ñett ngeen ñaar fukkeet ngeen di góor ngeen di jigéen na ngeen fexee jël relève maanaam na ngeen fexee taxaw seen taxawaay yu bàyyi yi passé ak seen maam ya ngir dox bu jekk bu jaar ci yoon bi mën a continuer di wéy na mu tàmbalee woon ngir lan ngir leer leeru lislaam gi fi ne woon mag ñi indi woon ko fi mu bañ a fay ndax leer gi du fay mukk ndax ña ko moom waaye nag dana yëkkatiku jëm asamaan ba duñ ko jot ba ñi nga xam ne góorgóorlu duñ ko jotati nit ki bu jaarul tànki wajuram jaarul tànki sëriñam royul kenn bu leer gi yëkkati ko dootu ko jot mukk te dootu jëriñu te day luy ci lëndëm di palantu di palantu di palantu ba ba muy daanu ci kamb safara wala mu daanu ci jaay ñangoor mu màtt ko wala gaynde mu lekk ko kon li am suma ki wax rek fa maa naylul mataalibi bi tamanni walakin tuxasu dunia xilaaba am la nga bëgg de du taagi ni du toog di mébét rekk de du la jox dara mu ne àdduna àdduna rayante lañ koy amee da ngay xeex àdduna xeex ngeen Victor Hugo di wax ceux qui luttent sont ceux qui luttent sont ceux qui vivent ñii dem ñenn dundul lu dul ñiy lutte ñiy xeex di bëre ndax àdduna noonu la noonu la ko yàlla bindee dañu ne arab yi dañ ne man jaala naa la ku wëndeelu am dara man jasara ay sara ku am fit da nga am loo denc man xaaba xaaba ku ragal nag da nga sooy da nga perte shaar bi ne axlaq bi sabri an yaxla bi xaajatihi wa mudmin al qara lil abwaabi an yalija axlaq bi di sabri an yaxla bi xaajatihi wa mudmin al qara lil abwaabi an yalija borom muñ gu rëy bi yelloo na am li mu bëgg lépp adduna ak alaxira ki nga xam ne dafa dëkk ci di fëgg bunt yi rek dana ma sa ubbi ko mu dugg te muñ suñu borom dana la ba xam dëgg la ci yow wala déet nag waaye buñu demee ba xam ne dëgg la ci yow dana la indil loo xam doota soxla sax fenn doota soxla lenn li shaayir bi wax di dénk doom ji naan fa kun rajulan in ataw ba'dahu yaqulu marra wa hada al athar na nga fexe ba nekk waajoo xam ne bu nit ñëwee sa gannaaw daa nga ah waajaa ngi fii la jaaroon de jeexitam yaa ngi nii mooy koo xam ne na nga na nga fi bàyyi dara ci adduna bi booy dem muy jëriñ jaam ñi loolu ñu yàlla bind bari na ci muy jullit muy yéefar muy yeneen réew moo dem am na fa ñoo xam ne def nañ fa jaloor yoo xam ne fa lañ ko bàyyi duñu leen fàtte mukk bu ñu dee ay jullit ñu di leen ñaanal bu ñu dee ay jullit képp ci sa njëriñ parce que taxaw njëriñ la fekk fa nga xamee ne sa jëf jeex na yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit bu deewee lu dul ak sadaqatul jaariya ak yooyu juróom-ñaar yooyu mu wax ne moo lay fekk si lépp def jeex na ba mu def sa ay jëf yoo jëfoon ci la ko yoo xam ne njëriñ la jullit ñi dañ koy jëriñoo tuyaaba ji di la fekk si fa nga nekk bu fekkee ne amoon nga yéene def ko ngir loolu kon dund gi lu valeur dund adduna lu am maanaam lu am solo la loo xam ne benn yoon nit rek nga koy am te boo ko ñàkkee dootu amaat te ci dee la yéene kon way way sa dund gi gàtt te amuloo lu dul moom boo ko ñàkkee dootu ko amaat te xel ba def ci loo xam ne bu ëllëgee doo réccu bàmmeel kat nit ki du fa dundee lu dul li mu jëf te bu jeexee te saa taxawul te kenn xamagul kañ la saa di taxaw dootu añ dootu reer dootu ndekki buñ ko saraxul wala ñu wàcceel ko kaamil wala ñu ñaanal ko dara te loolu xamul dana ko amal bi ndax bu fekkee ne yarul doomam yarul islam ba nga xam ne xelam dana dem ci moom mu di ko ñaanal wala mu di ko wàcceel ay kaamil kenn du ko defal dara foofu moom day jeexlu rek taxaw kon am jamaa jaayee ko xandoor fa la perte adduna mën a yem danga koo wees sëñ Tuubaa nag gisoon na jamono ji donc fàttali ni ko suñu Abdou Karim Kuré daan waxee ku mel ne kooku ma xaalam gis naa loo xam ne neexuma liñ ma fi mayoon ci adduna ma war koo dund dama ko fi bàyyi ñu ne ko li nga gis moom lan la nan la demee mu ne niroo way dëng ñi fujjaar yi kàccoor yi ñu doon ñoom lépp di leen gunge ba dugg safara te li ma ci gën a métti mooy gis naa ci ñu ma foogul woon adduna bi nag li mu doy doy waar it rek jullit bi moom warula naagu tax sallallahu alayhi wa sallam nee na la tazalu taifatun min ummati zahirina ala alxaq laa yadurruhum muxaalafatu man xaalafahum sama xeet yi du dañ mukk di ci am kuréel boo xam ne dañuy nekk ci dëgg rek nit ñi jëm feneen ñëpp du leen lor ndax dara du leen mën a tàggaleeg seen ngëm gi ñooñu yàlla na suñu borom boole subhanahu wa taala adduna nag ci ngay fàggoo alaxira laa tan sana si bëkk min dunia wa ahsin kama ahsana ilayka kon adduna wax ñu ne nga bàyyi adduna ji di caa gi nga bañ a góorgóorlu bañ a liggéey bañ a def dara déedéet loola sore naag bàyyi adduna laysa minna man saraka duniyaahu li axiratihi bokkul ci ñun jullit ñi képp koo xam ne bàyyi nga sa adduna ngir àllaaxira déedéet dañoo war a liggéey adduna ngir namm ci àllaaxira ni saxaaba yi doon def booy liggéey bu liggéey ngir yow rek na nga liggéey ngir jullit ñëpp boo fi jógee wacc fi loo xam ne nit ñi daañu ko jëriñoo ndax alxalqu iyaalullahi wa ahabuhum ilallahi anfa'uhum li iyaalihi du bindeef yëpp jullit ak yéefar bindeef yëpp njabootu yàlla lañu te yàlla nee na ki ma gënal ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci sama njaboot gi mooy nit ñi kon boo yox yoxee doo jëriñ kenn dara doo fi bàyyi lu jëriñ nit ñi yow ci sa bopp sax nga dem ba yaafus ba dañ lay yenu dina yóbbaale bu keroogee nga ñàkk bu wala nga bokk ci fàqir yi suñ tubaab ne xasbuka min tawakkulin àlla tara mujree risqika siwa rabbil wara wakiilu doy na ci rek nga xam ne yàlla rek la mën a wërsëgal waaye nag na nga sàkku sabab yi ndax suñu borom dafa toftale sabab yi ci li muy sabab li muy li muy indi kon soo bëggee am liggéeyal soo bëggee texe jaamul yàlla soo ragalee safara wattandi ko mooy lépp daf ko li ñuy wax sabab ak mu sabab maanaam cause ak effet suñu borom daf koo lii daf koo taqale ba nga xam ne ci adduna noonu la liggéeye adduna ba ñu jaam ñi ñu mën a indi justice seen diggante bu fekkoon ne rek kiiraay yooyu muy wax amul ci adduna nit ki dox ba jot la rek talaata la nga ne ko yow looy def nii mu ne la yàllaa ko dogal bu demee tribunal it ne leen yàllaa ko dogal ñu bàyyi waaye nag sabab yooyu loolu tax suñu borom def ko fi ngir nit adduna mën a nit ñi mën a am jàmm mën a liggéey ñu xàmmee ñi gëm ak ñi gëmul xàmmee ñi yaafus ak ñi jàmbaare xàmmee ñi am yéene ju baax ak ñi ko amul waaye nag dana sabab lu adduna ba jekk jekkal ñeneen texe texeel ñeneen jëriñu jëriñal ñeneen waaye nag fàggu boobu ngay fàggu adduna bu mu lor sa diine bu mu lor sa àllaaxira na nga fexe ba ñoŋal sa sa der bii ndax jullit waru la doyadil boppam ndax nee ñu boo ñàkkee nga am diine dem ci buntu ku am di fa toroxlu sa ñaari ceeri diine dem na kon loolu dana jëru ko kon jullit bi li ñuy wax istismar maanaam produire daf ko war a def istismar ngir mu jëriñu jëriñe ci liggéey bi ngay mën a leere ki xiif ci nga koy mën a joxe lu lekk lu mu lekk te nee leen wala matun te sudd bat na jaayi afdalu min binaay alfijaane benn ti bu ñam boo jox ku xiif ba lot moo ëpp tuyaaba tabax junni juma xam naa li góor bu doon wax naan buñ ne janax ji moo ngi toll ne nag janax ji su tolluwul ne nag it réy na lool lañ ci jub kon buñ ne benn tibu ñam boo xam ne bu lew la nga jox ku xiif mu lekk ko moo gën tabax junni juma bu gënul tabax junni juma it gën na lu bari ndax juma xuma la juma waaye jàkka sallallahu alayhi wa sallam nee na ku tabax jàkka ju toll ne kaasu picc moomu ñuy wax xabaat mooy printemps ñu tabaxal la kër ca àjjana këru àjjana ma ne su ko fee waxtaane ndax dara ci li nga xamoon ci adduna nuróowu la la ca àllaaxira waxuma la ak la ca àjjana bu nee néeg bu xeyaas néegu àjjana mukk mis lu néeg yi suñ ne ya ngay war buñ ne fas ndegam addunaa dox ba fas wàññi xaymaam wàññiku ba avion di dem fu fas mënul la dem ndegam addunaa dem ba àgg foofu rawatina nag alaxira rawatina àjjana kon àjjana xéewalam mënees ko waxtaane ci nit ñi ci àdduna ndax doo am baat yoo ko waxee bañ mën koo xam na mu demee waaye mel na mel woo xam ne teraanga yoo xam ne ak nguur koo xam ne ak bànneex boo xam ne kenn mënu koo xiyaas xajul ci xel xel mënu koo xam kon sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne ki gënal yàlla ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi ba nga xam ne yéefar sax lu mu weddi weddi weddi yàlla bu baree njëriñ ci nit ñi suñu borom du ko lakk ndax dafa niroog suñu borom ci benn jikkoom mooy tabe mën nañ koo mbugal de wala ñu bu ko feneen waaye du dugg safara suñ tubaa dina wa afdalul amali ma taaddilat lahu def lay it ma kat xat xat sabat an jahali di jahalin ila axirihi jëf ci gën ci jëf yi mooy ji ëpp njëriñ ci nit ñi jëf ji nga jëf te muy jëriñ ñeneen mu misaale ko moo xam xam-xam boo xam la di ci jëriñ nit ñi wala alal joo am di ci dimbali nit ñi wala sa kattan sa daraja nga di ci xeetal nit ñi wala lu mu doon rek jëriñ nga li nga jaamu yàlla gi nga xam ne mooy gi gën a màgg ci jaamu yàlla yi mooy gi nga xam ne moo gën a jëriñ nit ñi gi ci topp soog di loo saxal nga xam ne bis bu ne nga def ko mooy ndax day setal xol mu ngi mel ne béréb boo xam ne bis bu ne nga bale ko bis bu ne nga bale ko doo ko bàyyi ñaari fan doo ko bàyyi ñetti fan day dëkkee set bu dee xol nag day mujj sax ci set gi dootu am gàkk dootu tiim wa maa yastafti qalbu wa maa udim minhu wa in qulli la qaalahu xakim beneen bi ci topp mooy lu naqari sa bakkan bokk na ci jëf yi gën yow da ngaa suqale woowar moo ëpp ci yow tuyaaba julli moo ëpp ci yow lépp li mu doon ndax da ngay toroxal sa bakkan ndax toroxal seytaane ndax sa bakkan mooy sa noon bi gën a màgg ci sa noon yi kon loo ko toroxale rek loola gën a neex yàlla loola moo ëpp tuyaaba itam kon liggéey am dara bi ca wut yàlla am na solo ndax al yadu ulya xayrun min al yadi sufla yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax loxo bii féete kaw faw moo gën bi féete suuf nga xam ne mënul koo xam ne yàlla daf laa nattoo nga ñàkk kàttan boo mën a liggéeyee wala am nga kàttan waaye bu lu wër amuloo dara yàlla kàttan sa wërsëg laaj ci boppam dañ koo araamal dañ koo araamal ndax yi ci nekk lu tax ñu fu ñu ko daganale li darurati day yi day day gudd day bari waaye am li tax ñu daganal ko daruri yu la waxuma nag sëriñ buy laaj taalibeem tax dafa bu fekkee ne sëriñ bu mat sëriñ muy laaj taalibeem njëriñal taalib bi la ciy jublu waaye bu ko taalibe joxee ak bu ko joxul loolu la yemale képp moom li ko ittee rek na taalibe bi texe sëriñ bi wax na ko tey mën naa tëb lu bari ndax kii bi dina gudd kon ba mu ëpp waaye waxtu woo xamee ne ragal nga tarxiis sa tànk bii rëcc sa ndong gi dal ci suuf nga teelu ci mbiri adduna teelu ci mbiri diine am na benn shaayir bu ne woon ma ahsana diina wa dunia ida jtamaa yaa baarakallahu fi dunia bila diine ak rafet nit ki am adduna am diine waaye adduna joo xam ne diine andi ca yàlla defu ca benn barke yaa baarakallahu fi dunia bila diine am na lu ci nekk ci sama xel ci xam ne wax jooju mën na juumloo ñu bari mën na lore itam ci ku ko déggul ndax yonente bi saa sama dafa ne addunia malunutun wa malunun ma fiha illa dicrullahi wa alimun mutaallim adduna lu ñu rëbb la lépp li ci li ci nekk ci adduna it lu ñu rëbb la lu dul turu yàlla ak kuy wut xam-xam ak ku xam lan mooy dunia nag adduna lan mooy la ñuy wax adduna ndax adduna du caagee nii nu fi nekk rek di liggéey di di sonn di feebar di wér di lekk di naan di julli di woor di aji def yooyu yëpp déedéet adduna ci boppam mënuloo ko bàyyi te yaa ngi si biir mënuloo koo génn kon du adduna gi liñ ci jublu mooy yi nga ci xam ne mooy dox sa digg ak yàlla yi nga ci xam ne mooy dimbali sa jikko yi nga xam ne mooy jikko yi nga xam ne moo lay sori yàlla moo lay soral yonent bi moo lay sori sëñ bi nga yaakaar ci ko yooyu yéen ñëpp xam ngeen ko yooyu di ci melaw doomu aadama du lu yem ci adduna rek ndax nit ki boo añaanee alali adduna la añaane nit wala am amu adduna ndax àllaax rek dana añaane wu kenn nit ko boo xamee ne moo la boppale wala moo la gën da nga koy bëgg te da nga koy liggéeyal ndax bëgg am tuyaaba nga bañ kenn nit ki nga bañ am na lu tax benn séq ngeen dara wala jël na sa dara yooyu it mbiri àdduna la tayeel mbiri àdduna la julli gi jot nga tayyi wala koor gi jot nga sàkk layyi te yàlla moom xam na boo mënee boo mënul nga bañ a woor ne dama feebar yooyu yëpp mooy lépp loo xam ne dana dox diggante jaam bi ak boromam àdduna la àdduna jooju nag la ñu rëbb ndax day te nit ki dem jëm ci yàlla daanu ci àgg soobee la léegi moo tax nga war a seetlu ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis way ñàkk ñi dañoo mas a yebal délégation ci moom tànn ay nit ne ñoom ñu am ñi ñu am ñi ñoo yónnee ñu ñàkk ñi ñoo yónnee woon ci yonent waxtaan nañ ko ci ay waxtaan yi waxtaan ne leen bu ngeen demee ne leen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu yàlla defal wërsëg wu yaatu day yóbbu nañu li gën ci adduna ak li gën ci àllaaxira ndax buñ ne dañuy jihaari ñooy waajal xare bi buñ ne dañuy tabax jàkka ñoo cay def la ëpp buñ ne dañuy jihaat dem ci jihaat ñooy jënd gànnaay yi ëpp amul fas warwaay yi ëpp te bu ñuy julli dañuy julli na nun bu ñuy woor dañuy woor bu ñuy aji ñu aji nun kon ñoom dem nañu wacc nu raw nañu nu buñ demee wax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu mu ne leen yéen ñi nga xam ne way ñàkk yi ñëw leen yónni dama leen a bëgg a jox seen tont ngeen joxe leen ko bu ngeen demee ne leen waaye am ñi ngëneelal yàlla yàlla leen def loolu ngëneel moo leen ko jox waaye yéen su am na leneen ngëneel lu ngeen am lu koy ñàkk ñi amul loola moo di waxtu woo xamee ne saa taxaw na way ñàkk ñi muñ daañu dugg àjjana juróom-ñaar fukki at way woomal yi nekk ci ñu di leen xisaab di régler seeni affaire ñaareel bi waxtu woo xamee bokk nañu dugg àjjana te tolloo daraja ki ñàkk ki ki am buy seenu kër ki ñàkk day teen di leen seen ni ñuy seen a biddiw yi ci guddi ñetteel bi bu ñu bokkee ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ku am ki dana ko wax nangami yoon lu dem ci juróom fukki yoon soog a tolloo lépp benn yoon di ko ki ñàkk ki wax ku ñàkk ki ñu wax nag mooy bokk ci al fuqara saabiruna ñi ñàkk te muñ ñàkk te muñ nag lu jafe la ndax ñu bari daal di ko wax duñ xam ne mu demee ku ñàkk ki bu muñee du ñee ki am ñàkk gi du ko naqari day xam ne yàlla ko def te xëy na boo demee li gën ci moom la moo tax bu amoon dana bew wala bu amoon leneen dana ko gàllankoor kon suñu borom moom na xam jaam bi la mu ko tànnal mooy li gën ci moom mu bëgg itam ci ne suñu borom mooy falal na ma xisaab ëllëg ndax nit ki fiftin bu dugg loxoom ëllëg dana wax na mu ko amee dana wax na mu génne ci loxoom na mu ko sànkee lu mu lekk ci biiram noonu daan dem ci noonu bu fekkee ne noonu la ko gisee te ne itam suñu borom dara tëwu ko ñàkk naa tey mën naa am ëllëg te bu ma joxoon ma am itam tey mën naa am ba noppi am am bi ala ma wala ëllëg ma ñàkk te kon du ma ko mën muñ ndax tàmm naa am am ba pare yooyu yëpp bu fekkee ne ki nga xam ne moo ñàkk te muñ melo yooyu lay am ak xalaat yooyu la dañ kooku dañ ne al faqiru sabir xayru al ganiyu shakir xayru min al faqiri sabir waaye al faqiru al faqiru shakir xayru minhuma maan masalan ki ñàkk te muñ ki am te sant ko ëpp daraja yomal xiyaam waaye moom darajaam lu kawee kawee la dégg ngeen fi mu gënee moom it ki am te sant waaye am te sant moo fi gën a jafe am te sant bu ñu ko waxee charte yi bu bari daañu découragé ndax boo amee lu yàgg yàgg bul déclaré damaa gën ki bul xeeb ka nga yebaloon démb bul seenu mu di la demal di leen liggéey di leen defal dara ndax li nga am na nga ci génne xàq yàlla xàq yàlla asaka ji moo jiitu bu asaka ji passé itam bul seetaan ku lot nga mën koo dimbali te dimbali woo ko boo ko defee sant loo yàlla ñaareel bi itam alal ji ci boppam nga sant ci yàlla mooy li ci war lépp gannaaw ba nga ko génnee ba noppi na nga am yërmande képp koo xam ne kii lot na nga dimbali ko ca kam la nga mën bu ko defee loolu nga xam nag ndax muñ ci boppam dafa am fii ak an ak ala nit dana muñ ci lu tiis lu ko dal nit dana muñ ci am lu bari lool te bewul te changé wul te déclassé wul te xeebul beneen nawleem wala gisewul boppam ne moo gën kii kooku mooy fii moo gën a jafe ci muñ ak muñ muñ ala muñ an muñ fii muñ an mooy xiis nga trop waaye ñam bii am lënt la xamuloo lew na wala lewul sa xiis boobu nga muñaale ko ci ba bañ a lekk ci ñam bi muñ an mooy loolu ñooñu ñëpp benn ku ci nekk ak ay clabam dañ koy lim ay téeméeri téeméer da ngeen ko gis ci masaalik bi bu ngeen ko seetee léegi nag ñu ne al ghaniyu shakir xayrun min al faqir sabir am te sant sant lañu wax am te sant moo gën sax ñàkk te muñ waaye ki ñàkk ba noppi sant nag moo gën ñoom ñaar ñëpp ñàkk ba noppi sant gis ne ñàkk gi xéewalu yàlla la mën naa am ndax yàlla rek xam man xamuma mën naa am li ma tegee lii damay xaritam ndax suñu borom xaritam daf koy faral di nattu moom lay gën a nattu boo ko gisee noonu da nga nekk shakir gëmm ji kon bu nekkee ci àdduna te xam dana ci génn ëllëg day demee ci béréb boo xam ne lam ji fa nekk la fay fekk te béréb booba béréb bu nu ump la la fay dox lépp xamuñu ca lenn waaye béréb la boo xam ne bérébu bérébu tiitaange la bu daladi xel la béréb bu mat a waajal la képp koo xam ne fàtte nga ko nekk ci sa adduna rek nuur bu ëllëgee da nga am mett képp koo xam ne yaa ngi koy fàttaliku sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom du boole ñaari ragal mukk ci nit kon bu fekkee ne yaa ngi ragal li sa kanam ëllëg bu yomal xiyaamee suñu borom du la won boole ca ñuy ragal da ngay wóolu am yaqin ne yow da ngay mucc kon nag ragal yàlla fii ragal safara ragal laaj ko bàmmeel ragal xisaab ba ragal jéggi siraat ragal sukuraat ak ay métitam waxtaane nañ bërki démb ci gede sukuraat ni muy mel ak néew bi mandarga yi ñuy gis ci moom ba mën a am ci moom yaakaar ne ku texe la ak mandarga yi ñuy mën a gis ci moom ba di farlu ci ñaanal ko lool ndax tiit ci mbiram ruu gi na muy génne bu génnee na muy toll ak na muy mel fa muy jaar ak ña muy dajeel ak fa muy bët ak la muy jëfe ak fa mu nekk affaire barsax ak yooyu yëpp waxtaan nañ ko léegi dañ koy romb kon bu ñu xamee ne rek ëllëg li ñuy xaar foofa lu doy waar la te xamuñu lu mu doon daanu ci bàyyi xel dara nag gannaaw seytaane ak bakkan dara nag taxul nu woyafal ko ba duñ ko xalaat lu dul seen ko fu sore rek nit ku du seen mukk ne bu subaa mu dee wala tey jii bu ngoonee mu dee du ko séenu mukk mukk foofu la ko seytaane ma ne te mu ne day dee moom waxtu wu ne mën na ñëw waxtu wu ne laa taatikum illa baxtatan ni saa ni waxee ne saa noonu la itam lépp الموت ياتي بغتة سيدت بقوة الموتي من القضاء هذه الموت ياتي بغتة وربما يكون ذا شواغل محترمة دي داي بات فو فو فو رك برنا بني تشرك ونت كو خامني مغي امون اي مبتي بري اك اي نال اي بلان بري يو خامني بغنا كو اكزيكوتي الموت ياتي بغتة وربما يكون ذا شواغل محترمة كون وتنديكو تيري top ndigali lam tulaaqi muslihan fal taktaki bima bihi nassa xiyaaru salafi fekkee ne yàlla may na la chance nga dajeeg muslih muslih mooy kan muy jëmm ji nga xam ne suñu borom daf koo tànn ca azal ba mu bindagul jaam ñi ndax suñu borom ba mu bindee ruu yi te bindagul jaam ñi la raay ñaari loxoom ci gannaaw aadama loxo bi ñu mën a wax ne ndeyjoor suñu borom ñaari loxoom ñëpp ndeyjoor la waaye bu ñu dee wax ak doomu aadama waxi doomu aadama la ñuy wax ak moom loxo bi ñuy fees ak ay ruu mu ne ñii de àjjana laa leen jëme li ci def sama yoon newu ci yëkkati loxo bi ne ruu yi yëpp safara lañ jëm sama yoon newu ci faale ma leen lan la suñu borom tooñul kenn nit ñee tooñ seen bopp lu mu defee noonu nan lu tax mu def loolu suñu borom nekkul ci temps amul jamono nekkul ci espace nekkul ci béréb nekkul ci benn jamono démb ak tey ak ëllëg ñooyam ci moom amul amul kon gis na jaam ñi ba mu leen bindagul gisoon naan ba mu gisoon naan na mu leen bindee ba mu leen bindee ba kenn ku ne ko yoon wa ngay jaar ba mu xam fa nga jëm mu dogal nag dogal bi ba mu yëkkati ruu yi gis na fekk na xamoon na kenn ku nekk ba gis la na nga jëfee ci sa àdduna boo fi ñëwee duñ fay jóge ak ca la ngay mujjee lépp kon li ñu wax al qada wala qadar amul dara lu mën a contrarier dogal suñu borom ndax lu paaxee lu mu gis mu lu pare la ba noppi ndax suñu borom nekkul ci temps nekkul ci benn jamono kon amul luy ñëwagul wala dara di xew muy changé ndax xamu ko woon déedéet loolu mënul nekk suñu borom lépp a teewandoo fi moom. mu ne kon in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bima bihi nafsa xiyaaru salafi muslih mooy kuy yéwénal mbir yi sëriñ ñett la. sëriñ bi lay jàngal sa diine di la ko leeralal di la xam li araam ak li dagan di la wax li xew yowmal qiyaam ak jëf ju nekk la ko suñu borom di fayee nekk waay yi nekkin wu ci nekk ak lay waral jaam ba nekkee ca noonu mu jóge ci dem ci cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya dafay xam alquran xam hadis xam taqallubaati zamani xam mouvement yi astar yi xam ni muy jeexitale ci suuf xam yàqu-yàqu yi fu muy jóge ak fu muy jaar ak na muy yàqi nit mën ko koo fegal mën koo digal na muy def ba mucc ci kooku mooy cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya day suivre taalibe bi ni médecin bi di suivre malade bi kooku mooy cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya moo ci topp cheikhu tarqiya mooy ko àgg ca àgguwaay ba mooy mus al muslihul kabir dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne mooy yéwénal mbirum jàmm dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ku demee ne sëñ Tuba radiallahu taala anhu ak ñeneen ñi kooku itam ñu wekku ci moom ay catégorie la ñuy doon bokku ñu yem am na ci catégorie yoo xam ne dañoo sampoon seen gétt ca safara mu ñëw guddi gétt bi war leen a yóbbu àjjana dong li ci diggante bi nag fi ñuy seen sukuraat seen trahi bàmmeel seen jéggi siraat ak yëpp garanti wu ko waaye garanti na leen du ngeen dëkk safara te da ngeen dem àjjana loolu moo tax nga daal nga xam ne góorgóorlu moo baax ndax ki nga topp da nga koy roy ci jikko daan ci dana ci àgg ci kanam bu fekkente ne temps bi may nañu ko ndax roo yi ñooy am lu ñu nuroo te roo yi roo bu nekk dañuy xëccante ya nuroo dañuy xëccante roo ya bokk ya nuroo dañuy xëccante kon taalibi bi gën a roy sëñ bi gën a nuroo moom ci ay jikko kooka la roomu sëñ bi njëkk a xëcc te xam ngeen ne ruu daan ci àgg ci kanam bu fekkee ne jamono bi may nañu ko ruu na muy fóote moroomam maam na mu koy setale moo xam ruu bu nekk ci barsax la wala ruu bu nekk ci adduna gii ruu influence am moom ci boppam ci yeneen ruu ya muy dajeel foofa ak ruu yi mu wax yu nekk ci adduna fii ñaareelu catégorie kii suñu borom bindoon na ko ci àjjana waaye bala caa def dana sonn dana am jaar ay jaar jaar jaar jaar yooyu yëpp sëriñ ku ñoom buñ dee wax ndax am nañu bari ñu naan te ay jàngkat lañu waaye nag jàng dafa am fu mu yem am na loo xam am loo xamul ku xamul tasawuf donc du mën a dugg sa bopp ñu naan kenn mënu la jëriñ kenn dara loolu dafa gën a ko dig réer nit mënul jëriñ moromam réer mënu koo weesu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu jëlee ci moom ci lu xam ne dàq na loolu kenn xamul nu mu toll Uwaysul Qarani Uways ibnu Amir al-Qarani boobu bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñëwul woon ndax jébbalu si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yi tuub ndax yaayam dafa màggatoon loolu mu nekk si di ko toppatoo waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon nag yëpp ci baatin Uwaysul Qarani bi ni mu mel ak fi mu àgg ci yàlla toujours muy laaj ndax Uwaysul Qarani yi ñëwul ñu ne ko kooku day ñëwul dafa nekk di toppatoo yaayam mu ne Seydina Omar Uways ibnu Amir waxtu woo ko gisee na nga ko tàllal tey loxo ñaan ko mu ñaanal la njëggal suñu borom ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko def te Uwaysul Qarani bokkul ci saaba yi ci saa yoo xam ne yéen a bokk bu ko Seydina Omar gisee loolu xese bi dafa gudd du ma ko àggale waaye kon ku ne jàmm mënulul borom ma dara da ngaa mënulul kenn dara xamuloo itam ku la wóor ne mënal na kenn dara suñ tubaab moom waxul loolu dafa ne wajhu lazi yuhibbuni yab yab yabu wujuhu suadaa tam yab képp ku ma sopp bis bu nga xamee ne ñi texe rek la seen xar kanam di leer képp ku ma sopp rek sa xar kanam dana leer naññ. yonente bi salaa sama dafa ne al maru maa man ahabba ndegam sopp ni rek moo lay jëriñ ci moom njëriñ loo xam ne xel mënu koo xalaat rawatina liggéeyal ko rawatina gëm ko te yonente bi salaa sallam bi nga xamee ne. sàmm bi dafa ñëw ne ko waaw kañ la sax di taxaw mu ne ko loo ko xaroo ba di laaj kañ lay taxaw mu ne ko du julli bu bari du ko doole xeeti jaamu yëpp julli koor a ngi ci biir ajo ngi ci biir ci karturu yàlla ngi ci biir jàng alxuraan a ngi ci biir toroxloo ngi ci biir julli ci yonente ngi ci biir ak leneen loo xam ne nekk ci yeneen jaamu yàlla yi nan la koor nekk ci julli ku woor doo lekk doo naan ku julli doo lekk doo naan boo ci boole te ci woor nga xam ne du lekk du naan dana xool li ci adduna kii julli nag du ko xool daf war a ndax même su yàlla sax boo ko dee si kar nga xool ci benn tomb rek mooy boo la dimbali ci nga mën a teewlu dëgg dëgg dëgg waaye boo yàqalee sa bët rek doo mën a teewlu lu mu waree waaye bu fekkee yaa ngi xool ci benn bërëb bu gàtt bu tuuti rek teewlu bi day dal di ñëw li ngay wax dal di lay dugg bu baax léegi bu fekkente ne nit kiy julli moom woor na ndax du lekk du naan boole na ci di wax te ku woor da nga wax boole na ci mën a xool ñu may ko mu mën a xool feneen te ku julli moom ci kanamam rek lay xool bu mu këpp yoom rek lañ ko mu di ko xool kon koor a ngi ci ak lu ëpp koor jàng alxuraan a ngi ci ndax boo taxawee da nga jàng faatiha jàng saar kon jaamu malaayika yëpp ngi ci ndax malaayika yëpp sàbbaa la ñuy def te boo rukkoo da nga sàbbaa malaayika yëpp am na ci yoo xam ne seenu jaamu dañuy rukkoo rek jàpp seeni woom rek duñu siggi ba def saa di taxaw duñu duñu sujjóot duñu def dara ci loolu la ñuy yem boole seeni jaamu jaamuwaale nga ko ci biir julli bi am ñoo xam ne dañuy sujjóot rek ba faaw di zikri seen lépp mukk di sàbba ba day saa di taxaw boole nga ci liggéey boole nga ci jaamu yàlla kooku boole nga ci loo xam ne lii aj rek la ko nirool mooy sa jëmm ak sa lépp nga nga nga jëm nga jox ko suñu borom inni rajastu yéen ñi fadara sama borom da xam ne sama ma anam ñoom ci kenn du la booy kàbbar ji li ñeen sax dañ koy wax noonu ci seen labi rajastu ci yéen léegi fadara sama borom da xam ne sama ma anam ñoom ci kenn mooy sama jëmm yëpp jox naa ko yàlla sama lépp lépp sama yaram sama xel sama xalaat sama bët sama nopp sama tànk sama lépp jox ko yàlla kooku ci julli la am ci julli la am sañatoo xool lenn wala ngay déglu leneen lu bokkul ak julli bi loolu moo tax julli bokk ci jaamu yi gën a màgg xam ko joxe yonente bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef ak bu foofu mbindeef ak bu foofu julli kon ruuxam lu fort la moo tax ñu ne ku julli genn julli du ñu nangu rek te képp koo xam ne ku ñu nangu julleen jiite na la nga topp ci moom daañu nangu sa julli daañu jéggal yëpp te ku am genn julli du ñu nangu da nga mucc ëllëg julli am na jeexit maanaam influence bu fort bu muy def ci xolu jullikat bi waaye nag ci kaw na teewlu ndax julli phase yi julli yëpp phase bu ci nekk am na loo ko war a fas li nga xam ne la nga fay wax wuute na boole na xeeti jaamu yëpp ci mi ngay rukkoo mi ngay sujjoote mi ngay taxawee dafay gudd nañ ko gàttal defu rek koor moom dañ ne jinnatun suñu borom koy fayal boppam di yebal malaayika mu di ko fay moom itam lu bari lañ ci mën a wax ak noonu moom itam aj bi ñu nangu ajjan rek ay payam asaka day sellal alal ji li ci li ci takkoon mu sellal ko génn nga ci xaq yàlla jëriñ nga bindee te waxoon nañ ne ci gënal yàlla ci mbindee ci mooy ci gën a jëriñ waaye ci nit yi dañu jot de suñu borom tëkk ñu ko di génne wala ñu nekk ñu génne nga xamal sëgër wala su xanaa si sabil yàq suñu ay xam yàlla yëpp naa alias ñu rijaale ko ko yaa ji baaw jëne jëm ozo haga ma kan suñu ak fitam lañ leen di wax ko bokkuma ko tekku ko mu def al islah ci matal bi waaw ma ne ci waaw kon mën nañu na digg li